muy Cheikh Amadou Fadil mu Cheikh Amadou Murtada ak Cheikh Amadou ak jëwriñ ji sëñ Mbacke Ndiaye sëñ bi ginnaaw bu mu leen nuyoo ba noppi nag liggéey bi la ñuy tàmbali kon ndigal li mooy sëriñ Mbacke Ndiaye nuyul nuyul sëñ bi bokki taalib yi te leeral ko liggéey bi ni mu doxee ba egg si fii bu noppee sëriñ Fallou mii nga xam ne mooy seen jëwriñ dugal ci ay kàddoom ñu door déglu sëñ bi mu sant leen gërëm leen ñaanal leen. Touba Espagne góor ak jigéen mag ak ndaw. déglu sëriñ bi nee na ngeen déglu. te toog na ñëpp toog te ànd ko dal. Cheikh Mouhamadul Mountakha waa Daïra Touba Espagne. góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo ngi toog fii ci sa kanam jàkkaarlook sa jëmu tedd ji di yëkkati nuyoo bi gën a sell nuyoo bi gën a tedd nuyoo bu gën a yell ci sa jëmm ji di ko teg ci sa loxo ak mbooleem di waruk Seexul Xadim gi fi nekk ànd ak sunu jëwrin ma matul Faadal moom Cheikh Mamadul Murtada ak Sëriñ Basiiru Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir ñu ñaan suñu yàggal leen fi lool te wéral leen sëriñ bi waa Touba Espagne mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo ŋànk fédération Touba Espagne bi ñoom ñëpp ña ngi ci jataay bi koo xam ne nekkoo fi tamit sa ndaw teewal na la fi ñuy santaar yàlla bu baax xeeti cant yi gën a kawe nag xeeti cant yi gën a kawe bin jàkkaarloo ak sa jëmm du tedd ji heure bii daaw danga nga ñoo woowoon boole ñoo sa jëwriñ ji di Cheikh Amadou Basir mu am ndigal lu jóge woon ci yow jaar ci moom dikk ci daayira Touba Espagne muy liggéey bu mag liggéey boo xam ne képp koo ko jox yéene nga ko tawféex muy ci jumaay Cheikhul Khadim ji muy liggéey boo xam ne wax dëgg yàlla tawféex ju rëy rëy moo ci am ndax bérébu Cheikhul Khadim bii nga xam ne fi nekk dëkkaale feeg suñu boroom nga yéene ñu taw feexi ñu yeesal mboolem luy ab mukket ci biir ak ci biti ndigal loolu ba ko joxee suñu xol sedd na guy yi suñu xel dal na ñu waxaan waxaat nañ alhamdulilahi rabbil alamina keroog bi ndigali duggee suñu nopp ba yàlla dogal ñu woote ci mois de janvier bi daal di tasaare ko ci mbokki taalibe yi muy ci Touba Espagne ak mboolem ku ci bëgg a barkeelu yàlla dogal na ñaari weer le 10 mars bi ñu wootee Madrid yàlla dogal ne mbooleem li ko war a liggéey lépp yemb na ba dugg na ca banque ba le 10 mars le 11 le 12 le 13 la 14 mbas mi ñëw kon wérantiwul ne foofu Sëriñ Tuubaa gasanu noonu fa kon lool yi nga ne woon da ngeen ci am tawféex keroog ba ñu ko joxee rek lañ ci dajeeg tawféex ñu yàlla dogal na ñu lijjanti ji ko ci Turki ba lépp ñëw sëriñ bi loolee yëkkati nañ ko teg ko ci sa loxo jébbal la ko fas yéene toog nañ xaaraat ndigal am ci nañ xol bu sedd guy ak xel mu gën a dal lool ak yaakaar ju gën a dolleeku sëriñ bi mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo teew fii ci jataay bi ak mbokki taalibe yi nga xam ne yàlla dogal nañu amul yéen ñëw te ñëwuñu ñoom ñëpp ña ngi maase yëkkati ay kàdduy cant ay kàdduy ñaan jëme koy sa jëmm ju tedd jii ñaan suñu borom mu yàggal la fi lool ba yéene ji nga am ci liggéeyal ko seexul xadim ak sa wayjur yu tedd yi nga yeggale ko ni nga ko bëggee te ànd ko ak yow sëriñ bi waa Touba Espagne sinu xel gën naa dal bu baax ndax jamono yi nga fa ñëwee ca Madrid la ñu waxoon dey waxtu wu ne ñoo ngi ciy teg bët mbas mi di li muy bari bari bari sant nañ ci yàlla bu baax a baax a baax a baax waaye nañ téewul nag ñoo ngi tàllal loxo di gën a ñaanaat tàllal loxo ci sa barkeb jëmm ji suñu borom jeexal ko ci adduna bépp ban delluwaat ci liggéeyal seexul xadim bi ndax ñun dey xamuñu mbas xamuñu dara li ñu xam rek muy liggéeyal sëñ Touba ndax xol yépp nangul sëriñ tubaa keroog bi mbas mi gënee ñëw la taalibe yi gën a takk gën a dajale seeni i addiya gën koo teg sa loxo kon ñun amul lenn lu ñu téye lu ñu téye liggéeyal sëriñ tubaa loolu nag ñoo ko roy sa jëmu gii loolu yi nga ne woon maa ngi dem ñu ne Mbàkke yàlla nanga nu yóbbaale yàlla nanga nu yóbbaale yàlla nanga nu yóbbaale suñu xel gën naa dal bu baax a baax a baax nag ndax mbooleem ñu bokk liggéey bi day kenn ku si nekk amoon na yéene ba ñu joxee liggéey bi jenn jëmu dong jóg def liggéey bi waaye ngir bëgg mu yaatu day moo tax ñu tasaale ko ci jullu ñi ñu def ko ni ko bëggee kon sëriñ bi liggéey bi agsi na mu ngi ci biir jumaa ji jébbal nañ la ko waaye tamit nan daa defal an mu nekk ñu yëkkat suñu addee ñëw fi sa kanam gii jébbal la ko liggéey boobee ba tey boole nañ ko ci mu ngi ni ñu jox Cheikh Mamadou Fadal min daa àndal nga xam ne sëriñ bi moo nu boolewoon ak moom te waxtu wu ne ñuy ànd ak moom kon liggéey boobu yi tamit jox nañ ko Cheikh Mamadou Fadal dana la ko jébbal liggéeyu mukket bi tamit ni ñu ko waxee woon jox nañ ko Cheikh Mamadou Basir dana la ko jébbal ñun nag Mbàkke ñoo ngi nii ñun ñoo ngi nii liggéeyloo ñu rek bu nu yërëm bu nu def leen sëf ñu rek ñuy gën a dem te waxtu wu nu sëfee nañ nag ñu kàttanal ban mën a yeggale sa yéene xol boo dem rek liggéey sëñ Tuubaa moo ci nekk sëñ bi nag da ngay ku xool sa jëmm ji rek waxtu wu ne lépp loo ko jëm ci lépp loo ko wax mu def ko ci Sëriñ Tuubaa dana ci sawar ndax ku ne xam na fa at yi toll te tey yi nga gën a bëgg a liggéeyal Sëriñ Tuubaa moo tax lépp loo ñu sëf rek Mbàkke nangu nan ko waaye lépp loo ñu sëf tamit nag ñu kàttanal dooleel ñu wéral ñu wërsëgal ñu ban mën koo defee noonee sant nañ njàll bu baax a baax a baax a baax ñoo ngi sant waa daayira bépp lépp lu ci dëng nañu jéggal ñu ko xam ne masa dig doomu aadama la ak dàkkaarloog sa jëmm jëmam daa dàq lépp ba bu ñu dàkkaarloog yow lu ñuy wax waaye suñu xol sedd na suñu xel dal na Mbàkke yàlla na nga fi yàgg. di la ñaanal yàlla suñu borom gën la fi yàggal bu baax a baax te defal la ak wér ndax nun kat euh, li nu gis ci yow euh, du dara lu dul lépp bëgg sëñ Touba rek ak lu aju ci sëriñ tubaa ñii nag yàlla dafa def ñun yàgg nañoo ànd ak ñoom di jébale liggéeyu sëriñ Touba bii li nga xam ne nag moom lañ ci wax rek ndax liggéeyal sëriñ tubaa dafa am solo lool sëñ Touba daf daa wax ne sunu borom day du mbindeef bay am jikko waaye nag am na ay melo melo yi sunu borom nag bokk na ci melo yi sunu borom neex a liggéeyal ak naqare liggéeyal ndax nee na koo xam ne kii boo jógee ba di ko liggéeyal ba jëm ci di ko liggéeyal day mel na nekkoo ci dara ndax koo xam ne du la wax ne la fii laa lay feye du la wax ne la lii laa lay feye du la wax ne la waxtu sàngam laa lay fay loolee tegtale na ak naqare liggéeyal waaye neex a liggéeyal gi koo xam ne bu re bu bu demee ba di la fay du seet yaa ngay jëf du seet jëfoo du seet yaa nga fa du seet nekkoo fa day fay rek loolee tegtale na ak neex a neex a liggéeyal Serigne Touba bi nga xamee ne loolu am na mag ña fa nekkoon daf leen a waxoon ne leen yéen ñii de seen waajur yi sunu borom lañu doon liggéeyal mu di leen fay bañ fi nekkee bañ fi nekkatul mu di leen fay yéen ñii mu ngeen fi nekkatul mu mu di leen fay euh, sëñ sëñ Tuubaa ci boppam mas wax nañ ne mas naa am benn laax boo xam ne da togg ci loxol boppam laaxu lay dur euh, du mooy mos ca tuuti jox ko ña fa nekkoon ne leen Jibril de dafa wax ne euh, sunu borom nee na ku la liggéeyal jariñu moo tax moo bëgg a liggéeyal sama bopp sama bopp kon nag ñoo ngi leen di gën a soññ rek ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa ndax liggéeyal Sëriñ Tuubaa kat ak yokku rek la waaw kon nag ngeen gën a góorgóorlu bu baax a baax nekk benn xam ne ah liggéey sëñ Tuubaa rek am solo waaw kii nga xam ne nag mooy sunu lépp moom di Cheikh Mouhamadou Mountakha ñun xam nañu moom li mu fas ci sëñ Tuubaa xam nañu li mu fas ci ñi fi sëñ Tuubaa bàyyi kon nag ñoo ngi koy ñaanal taxawaay bi yàgg lool ànd ko wér. naa liñ ci jubluwaat rek ci wàllu liggéeyu tàpp yooyu yàlla daa dogal ñu liggéeyloo ko Turki ci walooru wu toll ci. deux cent soixante-quatorze mille euros buñ ko xoolee war naa tollu ci téeméeri million ak juróom-ñett fukk bu booleeg liñ ko indi ak liñ ci fare war naa tollu ci deux cent millions yu teg tuuti ñaar téeméeri millions yu teg ak weccet ñu ci sant nañ ku demee sëñ Abdoulaat lay ndax yàlla dogal na conteneur bu mujj bi moom moo ko jaayante indi ko jële ko Dakar ba Touba jaay def ko ëddee sëñ Touba ñu ànd ko daayira Muqaddamatul Xidma nañ ci turu sëñ Afia ak mbooleem ñi ngi xay ñoo bokk liggéey bi kon ñoo ngi santaat yàlla bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu bokki taalibe kon yum maa se rek sëriñ bi mu àggaleeg yéen cant kàdduy cantam door leen a ñaanal oh, ñu déglu ñu déglu bokki taalibe ngeen déglu mën a dégg kàddu tëj bi déglu leen kàdduy sëriñ bi sëriñ bu ne mi ngi nuyu bokki taalibe yi yëpp nee na mi ngi delloo nuyoo bokki taalibe yëpp di leen delloo seenu siyaare di leen xamal itam mbégte mu rëy rëy rëy ndax lii tey liggéey bi tey ndax liggéey bii tey ñi yor liggéey ba ca jumaa ja muy waa mu Muxaddam Xidma biñ ko waxee nee na xelam demul ci ñenn ñu dul yéen bokki taalibe Espagne yii nee na biñ ko wax Muxaddam Xidma waxee ne ko tàppi daaje dafa ajowoo yeesal si suba sa la wax Cheikh Mamadou Basir ne ko na ko wax waat bokki taalibe Espagne ne leen ñoom laa ko féetale nañ liggéey liggéey boobu te booba kilifa yi demaguñ nee na kon dafa mel ne lii dara bettu ko ci nee ndax yàqeen ju mu am ci yéen seen yéene ju rafet seen pasteef bu wër seen yitte ju rëy loolu daa fekk mu xam ko ci yéen ba noppi moo moo tax bi ñu ko waxee liggéey bii xelam demul ci ñenn ñu dul yéen nee na loolu kon alhamdulilahi rabbil alamina nee na amati na ci mbégte mu rëy a rëy ndax mel na ne dara bettu ko ci waaye kon jërë ngeen jëf nee na nu gën a sant suñu borom bu baax a baax a baax moom mi nu booleeg sëriñ bi sant sëriñ bi muy suñu lépp tey ak ëllëg te gën a rafet njort te gën a rafet njort a soññ nag sunu bopp. gën a nag sunu bopp. sunu kem kattan. sunu kem kattan. sunu kem kattan nu gën a fonk sunu lislaam. sunu kem gën a fonk sunu lislaam. gën a fonk sunu taalibe. gën a fonk sunu taalibe. nee na lislaam moom ñëpp xam nañ ko digal la ak tere. kon na ngeen ci gëna a góorgóorlu bu baax. ak taalibe nag. moom sëriñ bi moo na ko xamal ndax sëriñ bi moo ko fi indi te moo di jublu yàlla di yéene lu baax te yàlla rekk tax di jëf lu baax te yàlla rekk tax bëgg lu baax te yàlla rekk tax bañ lu bon te yàlla rekk tax di daw lu bon te yàlla rekk tax nee na loolu rek mooy liggéey bi kon paste bu rëy bi ngeen am ci ndigal lii ñu leen joxoon ngeen defe ko nii ngeen ko defe nee na tax na liggéey boobu yi li muy rëy rëy xelam dal na ci yéen neen na njort tamit gën naa rafet ci lépp ndax sëriñ bi kon na seen xel dal bu baax a baax a baax tawfeex ji nu am ba sunu borom bindu nu boole nag sëriñ Tuubaa booba la sunu lépp defaru nit nag daa mënta toog loxo yeneen kon nanu góorgóorlu liggéey rek sax dàkk ci jaamu yàlla sax dàkk ci liggéey sëriñ Tuubaa nee na loolu rek mooy doxin wi kon jërë ngeen jëf nee na xelam dal na ci yéen bu baax a baax nee na da leen da leen di seereel rek ne mi ngi gën a yeesal ak jaayanteem ak diggam ak sëriñ bi te di leen ko seereel te nee na mi ngi leen di xamal ne mu ngi fas yéene gën a feddli ak laxasaayam fas ko yéene ànd ak yéen waaye dal ngeen xelam bu baax nee na xelam dal na bu baax kon mi ngi leen di sant cant gu rëy rëy rëy di ko seeral sunu borom mi nu boole sëriñ di ko seeral di ko seeral sëriñ bi muy borom liggéey bi cant goo xam ne buñ ko mënoon fa mu war a yem rek fa mu koy tàmbaliwaat jëm ko te du am yem waay waaye xolam nee na xolam sedd na guy ci yéen bokki taalibe yii nga xam ne yéen a nekk Espagne ndax yitte jëm xam ci yéen ne loolu sax mantul gi mi feeñ na ndax Cheikh Mamadou Basir mu Cheikh Abdou Khadir mi ngi nii di leen seeral liggéey bi Cheikh Mamadou Fadil mi moom Cheikh Amadou Mourtala mi ngi xam ne yéen ko daan ànd naka jekk mi ngi nii toog ne loolu mandarga la mu rafet mu mat sëkk mu dara de desut ndax kat mbooloo yi li ñuy bari bari tawfeex ju toll ne eh, ngeen ànd ko ñaari seen Sëriñ Tuubaa man ñu doy man fii bokk ci tay bi loolu mbooloo yi li ñuy bari bari ñaam tawfeex yi ànd ak ñaari sëti Sëriñ Tuubaa ngeen ñëw fekkaat ko fi moom mii mu toog mii Sëriñ Tuubaa ñu ànd ak yéen ab liggéey jébbalu liggéey bi lan loolu tawfeex ju rëy rëy rëy la nee kon jërë ngeen jëf na ñëpp taalal ñaanal leen ñaan mi ngi ñaan bu baax sa ñaar ñu ngi ñaan ab taxa naa kay bu mu ne ni mu xamee nee na ni mu xamee seen taxawaay ci liggéey bi te te liggéey bi mi ngi fi dan ciy nekk rek na ni mu koy waxee rek mu bañ a taxaw ba bis penc ba nee na loolu moo war doon suñu yitte moo war doon suñu taxawaay nee na kon ci biir liggéey bi ginnaaw lii ñu leen digaloon def ngeen ko nam gën a rafete dana leen daal di jox yeneen ndigal laneen ndigal nee na loolu nag Cheikh Maodo Bachir monsieur Abdou Khadir dana leen ko gën a leeral neen nam ko yónnee woon ci yéen tàpp yi la ko yónnee waat ci yéen beneen liggéey ab liggéey la bu ci biir liggéey bi boo xam ne bu ñor xomm la bu yitteel la te bokk ci këri Sëñ Tuubaa te foofu la jëm ne loolu nag si basi dana leen ko jotal xamal leen ma lan mooy liggéey ba ak ni ko bëggee nee na taamal bëgg dinaa leen ko leeral incha allah te nee xelam dal na ci bu baax a baax nee na liggéey bi mu leen di bëgg a jox xameewu ko liggéey bii ngeen ko jébbal bu sotti ba noppi ndax lekk la demee alhamdulilah gàttanu bi am na ci ba noppi bi mu gëmee ni bi mu koy xameewutu bi noppi bi loolu mooy béy dana noppi loolu kay tawfeex la kon mbokk yépp ngeen bàyyi ko xel xam ne ndigal ñëwaat na bàyyi ko ci Cheikh Mamadul Muntaxa jaar ci jëwrinam Cheikh Mamadul Basiru dana dikk ci ñun fu waa jëm nañu ko yóbbaale